waaw li fi xew mooy que dafa am hydrocur eh, hydrocarbure xaw ma essence la gasoil mais ñun nag gendarmerie yi eh, gendarmerie du moins samedi nuit dañuy jàppoon ni xeetu essence la donc euh, bu mu commencé parce que population yi nee nañ ma sax commencé na deux trois jours avant man samedi laa génn si guddi vers vingt trois heures et quelque ma dégg xet ma tourné ñëw bi si bassin bi ma gis ni am na kii nu di liquide bu xelleeku bu xaw am couleur bu weex mais dafa guddi woon foto naa sa leerul ma woo capitaine Dièye de la gendarmerie moo ne ko fii y une situation extraordinaire bu fi nekk bassin bi euh, hydrocarbure moo fay tuur mu envoyé ma benn brigade de trois gendarmes yu ñëw rapidement ñu xool affaire yi toog nañ fi ba trois heures du matin si la sama agent yi wàcc sa si bassin bi tànk ndox mi pour que suñu weddee parce que su vague bi ñëwee marée haute bi ñëwee da ko yóbbu géej mën nañu weddi parce que ñoom faale wuñu kenn waa waa terre laay wax respecté wuñu du ñu wax ak kenn donc li ñu ragaloon ba tey préfet jot na si si guddi gi defe naa lendemain dëmb si bi dimanche bi mu informé ma su préfet woo ma hier nuit dama préfet na fi ñëw tey midi ak commission protection civile pour ñu xool lan moo fi nekk. ah li ñu doon euh, ragal nag euh, li ñu doon bëgg a moytu si loolu am vers 9h mu am feu bu déclaré wu si euh, chantier wu kii parce que ñoom ñoo ñëw di liggéey seen ouvrier yi seen kii yu yore moo génne étincelle affaire bi takk. ñu ne léegi du pipeline mais wetu pipeline la pipeline it euh, dafa musoon tuuru ndox moomu eh, ni mu se di hydrocarbure boobu la ndoxu taw bi di relever man gëwuma loolu wax naa ko préfet bu ñu nax nit ñi nañu sulli foofu xool liquide bi fan lay jógee ñun ay nit a fi dëkk on peut pas venir comme ça rek naan woy kii la fii gas nañ ko après deux ans pour régler les problèmes dina deux trois ans fii raay train jàllul woon lii lépp dañ ko dindi woon li nekk suuf gis naa ko te kenn mosuloon am xetu gaz kii gasoil wala kii bu ndaw bi rek naan depuis une semaine xet bi kenn mënul te mu jël bassin bi yëpp am na li ñuy nëbb nañ ko génnee te sinon musiba mooy ñëwaat encore donc on a alerté les choses sont arrivées ils n'ont jamais parlé aux gens ils ne parlent même la mairie quand tu une commune man j'aurais pu arrêter ces travaux là loo bi jox na ma jox na ma sañ bi jox nañ seen bassin di jël samay poto lépp mais dañuy xam ne projet la rek mais dañu respecté nit ñi au moins su amee li xeeñ ngeen ñëw rassurer maire bi wala population bi nekk autour ne leen xeet bi daal du dara lii ak lii la moytu leen li ak lii duñ ko def ba musse ba am ñu naan di koy jee ma minimiser naa lii la lii la je dis que il y a quelque chose de grave qui est enfoui ici dañ koy wax tey pour que suba su amee ñi xam ne wax nañ ko nañu sulli foofu xool lan moo fa nekk Sarr mënu moomul nit ñi terre moomul nit ñi dañu génnee fee population yi fi nekk dañu bëgg ñu génne ñu rassuré leen ñu xam lan moo xelleeku fan lay jógee mais duñu ne rek amoon na fi loolu mooy jóg nawet bi lay jóg di dem dugg si bassin di envahir lii yëpp man mairie bi d'accordul si loolu ñun du ñu ay technicien moo tax ñu doon au banque mondiale ak ADM ñoom ñoo ñoo fi liggéeyoon ñoo xool lan moo fi nekk de ñu ngi yàq ouvrage yi fi nekkoon pour inondation euh, nu mu safara fay nañ ko une heure trente après muy continuer di saxaar di génn côté bee dañu ragal ni ouvrage yi fa nekk tuyau yu man naa si dugg sans problème ay juróom-ñaar ñoo nekk si suuf fii dañu ragal ni loolu moo lakk te su lakkee rek inondation problème am na donc ñoom fu ñu gisee ak ñun fu ñu gisee du benn ñoom ñun seen raay moo leen intéressé ñun raay bi moom dundaluñu pour le moment amaluñu njëriñ bii moo ñu amal njëriñ moo xam ne moo ñu génne si inondation ñun moom la ñuy jooy bu ñu indi woon loolu moom laay wax di gas di suul loolu baaxul. benn assurance jox ñu ko su commission protection civile dina fi ñëw xool def prélèvement mais ñun li ñu mën a woon ni kii du takk diñu fi sanne dara du takk wala li fi nekkaa résidu du takk dina am produit bu war a jógee saar pour muur affaire du takk xaw ma lan loolu yëpp gëmuñu ko parce que bu problème amee kenn faale wuñu kenn wuyu wuyuñu kenn expliqué wuñu li ñuy expliqué ni tant que gisuñu affaire bi dañ duñu gë leen gëm parce que dañuy nëbbatu kuy nëbbatu nag su la vraiment parce que ko bette rek mu lay wax mais mu lay wax du la wax lépp dafa am yu des